Allah Allah baay Allah Allah maam baay ñas kumba ak Abdalaay yaa yor jikko yoonan baay dëgg dëgg ñëpp yaa nun waaw yee yee ay waay Allah Allah baay ñas Allah Allah maam mi baaj ños ku mag Abdoulaye yaa yor jikkoy yoneen be maami Munzir aji dabala ñu naan yaayam maxtaaray baayam ay waay ndar yóbbe yelaa ndar yóbbe yee Seydu Mbay baayam jamala ñu naani yaayam tuuti loo ñu yoon bu ñu yàlla bëggee nañu bàyyi ak nga waaye danga nangoo liggéey boo nekkee ci yoon dinañ la bàyyi xel waaye lu ñëw nanga ko dékku yàlla du jiital du soxor ajama muy sa yaay baax bëri bokkul bu guddi ñu xam ne yaay doomi Adama bala ngaa seede ci moom Ablaay Jaar nga dugg ci biiram ba xam mu doon dooro seede ci moom pël bi nee mi àndaa xamuma bu ma siidit lu ma fikkewul doomu yaayu aakiim mbokkum ndeyum tuubalaay ee eh, man de damay way am waaw waaw dénk la yàlla na nooy jali ne kooku mooy maami Munzir aji dabala ñu naan yaayam doomu yaayu taal la juf la dindeela aram saar gànna maam ba aram saar maam baay maam baay way waxtaan wu ñu suukar la maam baay jata moy bayam jata Abdou djoufay bayam baayam Ablaye Diak jata Maguette Sène lañu nan yaayam moy bayu mama mama lañu tuddee nday am yaayam ey waaw waaw doomu yaayu Moundir Niass bi ñi taxawal li yaayi fooñ baye nga Medina baye Oh, oh, oh. fa lañ ci ale loo nanoy loo siri ma jëndaam gaydel gaydel xujj kumba sire sire xujj kumba du ma def dara ba fàttiku ndeysaan Omar Thiam chéri xadi kaay seede mama waay aliwoo mbaaw seede leen mama ali loo ñu doon xàccandoo di dóorandoo yàlla jël ko bàyyi ñu fidd suñu njàmbaar Ablaay Allah Allah baay ñas kumba abdalay yaa yor ya ji doyonen be ana siriyaay buy waawaaw ba ku ma xam ci àdduna rek fii la ma xamee mhm. bañ nañ ko ba dañ naan moom mooy rabi Saalum ndax bëggul waaw mooy mboose ku ma jigéen ndax moom waxul Dakar dara sama gars yi loolu lañ may mbalage bu yello Dakar day xesen mais du loolu sax dañoo nit ki bala nga uti fenn base utal fi nga dekk base tax saalum saalum ken mënu leen nax mhm. buñ la nangulé rek fo dem ñu nangul la mhm. di len gërëm di len sante mhm. di gërëm képp kuy bëggé alé ndax ñi bëggé alé dafa bëri di gërëm ñi nga xamné ñoy staff bi may jappalé ak groupe bi ne suma ginaaw saalum suma dekk maam ak képp ku ubi groupe whatsapp rek ta alé mbuba khadim tax la jog

pour képp koo xamante ne rek artiste nga ndaanaan nga donc Kaolack euh, wala nga dëkk Sénégal émission Binimel, ni mel yow la ñu ko jagleel yow yaa ko moom tey mooy premier numéro bi comme ni ma nous avons ñu am honneur dalal donc doomu Saloum koo xamante ne nii euh, fépp fu mu mën di toog di wéy Saloum lay représenter dignement et donc muy Alé Mboup mais euh, dañu waxtaanee musique hein. concept bi donc musique la ñu waxtaanee showbiz la ñu waxtaanee moo waral sunu invité d'honneur tey qui hein, ci.

def ko ba artistes yooyu di bégal euh, public Kaolack waral euh, tay ñu dalal ko momi tamit wara waxtane musique ak xam ngeen euh, ci Covid 19 bi ñu nek tamit nga xamante ne nii danoo dab yu bëri yo rek mom ci bopam promoteur la programme woon won ko mbass mi ñew yàq yi ni donc warna am yenen projet donc après Covid 19 et tout ça contrat yo nga xamante ne nii ak ak yenn artistes yi fu ñu ci toll loolu lépp dañu ko waxtaanee donc comme ni ma ko waxee rek li waral émission bi ni mel ñu mun def surtout ba jàppale artistes yi nga xamante ni ñom ñoo nekk que ñu mun di leen gis ñuy produire en live comme ni ñu ko defee ci émission binimel, di nuyu ñëpp ñi nga xamante ni rek ñu ngi fi tay ah ñoom tuubalaay ñeu fekk ci li ñu bés bi gis euh, léegi léegi ndanan momi tamit foo dem mu fekk la fa euh, dal di ñew ah donc def dérangement ak déplacement yaa ngi wax yow yaay rabu Kaolack mais ki lañu wax rabu Kaolack waji tok ni nii door a yegg si nii kii rabu Kaolack. kokoy Modou. Modou Xalass ja am nañu mbégte dalal ko fi momi tamit mu ñew ah, fekk les suñu guddi gi ni mel Napoli suma gaay yi maa ngi leen di gis ñoom tamit ñu ngi door a si ah ax kharma ana cham président bi Kamal Damwali Hein, gaa yëpp ngi fi ah, donc fas andak ànd ak ñun ah, ci guddi gi mel Mor Mbaye ma ngi lay nuyu akim Amar yooyu tamit wuñu la Cheikh ndjay mi nga ni ne ah, euh mu ngi juggé ba Louga ñëw fekkee si guddi gi mel euh, Silmang Ndiaye aussi président conseil régional de la jeunesse Boukaoulak Kaolack fu ndaw yi wote moom itamit. te nga fa Thié sama way suma xarit suma invité. ne len li tambali rek la. Ndaysan. yeneen ak yene ngi ñew ci tay ci Goudi sur la télévision du Saloum avec les artistes de Kaoulak mais également avec tous les acteurs culturels. ñëpp ñi nga xamanteni ni rek ñu ngi yëngu ci walum culture euh, ci walum événementiel ñom ñom mom émission binimel allez dañu lay baye nga door ce deuxième morceau le temps ñu ñëw nag ah ci waxtaan bi lan nga ñoo jox comme deuxième morceau. ay co ndeysaan di ci bëgge waale ndax fet de la musique kon dañ koy aarondi rek di rendre hommage kenn koo xam ne mënuñoo def aar te waxuñ ko muy maa jigéen képp kuy musicien rek ñi la koy may morceau bi di ko may sama gars yi door a egsi ndax lu ma jàpp ñoo nga ca ñoo ma dooleel Baye Fall yi Satan. Lai mizik budon batima iya wiai fandu mab mizik budon batima yu moi fandu mab wow wow yàlla dina jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen ba boo naagu danga naan kii bu ma wàcci damay torok yàlla mi la sàkk war laa defal bàyyi laat jooju waay laay bu ñu noppi xalaat la ñu di fun maam ya ndeysaan yaay buy àdduna ngi nii àdduna ngi laay yàlla dafay jël sa wërsëg jaarale ko ci keneen ba boo naa ko kii bu ma wàccee damay torox yàlla mi la sàkk war la defal bàyyi laak jooju waay yaay booy faal dëkk ci dëkk bi dëkk ci dëkk bi lañu wax yéen ñi may dëgg di ma tiitaroo lu ma neex na leeno taalibe borom daara bul ma seen may dem nga di ma seede lu ñaaw bul ma seen may way yow nga yokk man lu ñaaw musique la ñu yàlla booleel ñu ci teral suñuy njaboote bu leen jàppi musicien jaam non non bu leen ko jàppi ku amul métier non non rek yaay buy Ablaay bu ñu noppee xalaat lañu defoon maam ya bu ñu noppee xalaat lañu defoon maam ya foko du ne bu du du dana xalaat ndam du dana fayanto bu ma sañoon Afrika benn nit moom moo jiite ñu boole suni xalaat suni yéen jox ko ku sant faal faale na Không naqom luñ ma benn yoon waa Saalum tuuti luñ mà benn yoon yéen yên am nhún nit nhún nit yéen yên ñi nhún ngeen Moussa Diama kàccar kàccar kenn jaay kun daa tey mu niwu dama ñaari man na kurtugul kër saam bëggul gi mu yo ñoo ngi dajaloo yee na foofu rek ñoo ngi dajaloo doon benn say ngir génn njëmu Saalum sama dëkku maami man de aw ma ñoom jiital naa ci bay moom seen jiital naa ci bàyyi moor taalibe sëriñ moor mbay siise ca njaareem dina jaay alalam ngir man dina fanaan àll ngir man lu ne dina ca ngir sama jëmm ju xeebu gi na tuuba mi di ma xool musique bu doon bâtiment yow yaay fondement gaañi da ngeen a namm lii xanaa ana siiri soñña borom lu gën a te mu yaay la waay waay xarit la kii doomu yaay la waay waay xarit la moo jóge ñambur njaay yaay ñëw fii ci Saalume ah cey bukki doomu yaayu ci mu ko faal faal mi yàlla faale faale naa lu ma mel yéen la lu ma am yéen la su ma saloo yéen la su ma naani yéen ndeysaan nday gàtt xanaa Saloum wowowowoo fii suñu télé la ñun ñi ñoo ko moom fii suñu télé laay jéema ko jéema ko jéema ko doomu yaayu Cheikh Ndiaye daam lu ma waaye defu leen ko ak bëgg Kaolack nangaan yaa ngi jàppale jigéen ñi yaa ngi defi ay ay borode Adama mooy sa yaay yow du mooy xalaatay sa baay surtout boose kumba jigéen ana sama waa maa ngi lay bégg nga di ma bégg nga di ma bégg ma di la bégg get meu my big, go to the big, ah, get meu my big, light in my big, go to the big, yeah, but get around, yeah, my tá isso sao? lelah Ina jam abab Yen begemam jerno ibra fatinda malla jadaru Shikuri da leer mana fa ñëgit dañoo Shikuri dafa leer bana fa ñëgit dañoo Mufma mouvement bu lu ñu siti de jël nuuru jamaal nuuru jalaale jiiru kamaal mamudu bakke kamaal korog mu feeñi daaru gaañe poy dafay jël sa wërsëg jaarale ci ginim boo naagu danga naan bu ma wàccee damay dorox yàlla mi la sàkk war laa defal bàyyi laa jooju waay Take it.

Euh, bu nu waxtaanee tuuti rek euh, nga dem nga dem summeeku boo ñëwee nag damaa bëgg nga wéyal public bi comme ni ma la ko waxee gaa ngi ni toog ñoom ñëpp yow yaa tax ñu ñëw ah ñoom ñoom Moussa Diama ah Xalaas waa Napoli ah gaa yëpp a ngi fi ñëpp a teew. recevez-vous 4 mois. Touba Touba Touba Gueye. léegi gis naa fi kanam yoo xam ne recevez-vous yëpp gisuma leen. gis nga fi ñoo xam ne comme que ñëw ngeen nag. waaw léegi. te écran la i mel garaaw lu àdduna yéen a ñuy seetaan mais ñii dañuy suñuy xarit. léegi moo tax ñu invité leen. boole naa leen ak Touba merci beaucoup. ñan la waa Napoli. non ñëppay def <laughs> ñëpp ci jàpp ñëpp ci jàpp alors lan moo tax lan d'abord lan moo tax nga rendre hommage euh, Youssou Ndour ah ci son bi ni mel. ok loolu moom bu ma ko defee sax warta bett kenn ndax ku gërëmul nit doo gërëm yàlla suñ borom. te dañoo doon ay ndaw ba muy woy sax 82 ku ko génne ci bi Youssou man 82 laa juddu la 5 janvier 1982 ba ma juddoo ba tey maa ngi déglu Youssou ba may juddoo rek raam laa xàmmee ko Youssou tey fu musique mbalax yegg yóbbu na ko fa sori moo tax ma ne ko musique bu doon bâtiment yow yaay fondement bëgg naa ko way ba mu jeex te duma jaar ci turam pour mu xam ne wayuñu ko pour lenn mais jëf yi mu fi def ñu doon ay xaleel bëgg nañoo def sax lu romb li mu fi def ndax bëgg rek la te yàllaay maye mais buñ sañoon mel ni moom wala ñu romb ko. looloo tax nga rendre ko hommage. ndax teg na ko fi mu ko war a teg ba am ci lim ci war a am di ci dimbale ay jaam. très bien te lépp mbalax barki démb damay déglu émission bi am waaju ne xaw ma monsieur yéen géwél yi uti leen liggéey. Mm-hmm. mais fii lu fi baax géwél yi dëgg la bu géwél amul won kenn du jéngu xare balé daan tak sax géwél yi ne ci ginnaaw mhm. kon ku fonkut géwél mhm. ah am na loo xam ne la très bien buñu ñu buñu bu buñu jógee ci sunduur ah ñu ñëw directement ci Kaolack le temps ñu lay bàyyi nga dem changer Alé Mboup ñëpp xam nañ ni doomu ndaanaan nga géwél nga mais lan mo le motiver ba nga woy yaa ngi fàttaliku bi ngay njëkk woy est-ce que yaa ngi fàttaliku lool bi ngay njëkk woy waaw bi ñuy bi may njëkk a way maa ngi koy fàttaliku parce que ñun ci kërug ngéwél lañ juddu saane wi ñu ngi yaayam bi ko jur ak suma papa ñoo bokk nday ak baay ci biir kër ga ñii may wax xam nañ xale bu fiy sos sabar mës na laa sabar wala mu jox la sabar ndax ñi fi njëkk taxawal sabar bëgg ko ay magama fi nekkoon moom it waaye génération bi ku fonki sabar ñun dañoo judd rek fekk fa ay sabar ca biir kër ga waaw mais xañ na li naan nit ki li nga war a doon moom yàlla noppi na ku xamoon fan la da ngay dem uti fa ay way bi ma nekkee fii aar ñoruma dama doon xëy di liggéey suma papa takkal la xasaay la alaaji Mor Mbub léppay baax borom loola war a këllibee jóg amul ku ko xamul ci marché Kaolack ci yoonu Serigne Touba la doon dox ñun nag xañ na yàlla fayee na ko ndax am naa rakk juy jàng xasaayit bu ne der nga ne der waaw mais xañ na man comme yàlla fii la ma yóbbu du ñu teree tamit xam li ñu war a xam fi ñu jugee def ci lu baax wax ci lu baax ba koroog yàlla di def di gën. kañ la Alé Mboup yëg ne dafa war a wëy. kañ nga yëg li ma yëg ne dama war a wëy Tàmbalaa ne ñu joxame ba sama papa gaañu ma jóge fii dem euh, samar mag yaay Tamba pour yeggale suma métier boobu yaa ngi toll ci ñaata at. ay xam naa booba ay 10 ans rek man sama papa bi muy gaañu booba. ndaw laa voilà mhm. léegi bi ñu demee foofu. Euh, may yeggale suma ñaw benn jour benn gaañ bu ñu naan Dalifor li may wax nii xañ na gars yi xam nañ ko ñëw fa tournée simb ànd ak ñoom pëti ñoo xam ne xam naa leen booba maa ngi fii Kaolack mais ma ñëw gis ta que fii laa duggee gone ak Kaolack moom fecc ak yooyu moom. dara ko ci waaw bu ko deful sax mën na ko. Mhm. fu mu dem moom mën na ko faa dégg galan waaw ma ñëw gis sumay mbokk affaire boobu gondi ma. Mhm. ma dugg ci simb si fàttaliku cosaan jamonoy ay maam ak yooyu jaar nañ ci fuural. fi ku dekk kaolax jaar nga ci fural man nga tak ma tak fofa noy genn xalé nan yaay eh, eh, succès bu ma ne ah affaire bi wa nu mu demee ni affaire bi neex na ah. si la gisé gaay timit ñom bu ñëw ba war a di continuer dem ay côté Malek yoyu ma ba fa lepp top leen di simbu wi gaay di simbu ngay woy wa non may simbu yow ngay simbu carrément fecc fecc la ñëkay simbu duma wax nak li ma doon simbu Grand Lion yooyu yëpp jaruko gars yi. àll baaru da laa doon tag euh, noppi. mais nañ ko waxee mu nañ ko waxtaanee mu leer rek. teleel ay doon sol. ci si loolu doon sama déglu ma xale yaa ngi ca kër ga. basa basa. d'accord ñu man simb laa doon def. waaw takk ba mu neex. ah gars yi waaw. doo ko leeralal gars gu laay laay la lu may gisi góor di dem ci leneen ak jamono. ayca ayca yeggalil ya yeggalil. Ya ñi may seetaan nag te xam la ma daan def. très bien toog leen rek te ne pat. kii maa moom la voilà heureusement boobu vaar amul ah. vidéo waaw léegi may fecc quoi mais damaa bëggoon di déglu ay Assane Mbuub ay morceau ay Grand Laye Bamba Seck ay Seck Jaak morceau yi xale yi fooy paroles yi ñuy wayantoo nii yëpp ma ko doon déglu. bëgg ko benn jour ma ni ñuy simbee ni am ku manqué. suñu waykat bi dal dali daan na ma dégg xam ne am na voix ko amee aw ma fit mu ne ma tey yaay way simb ma xool tamit dem ci di isin way isin mu neex lool te feccu ma ci ba xëxët korog yor mbuusu weccet affaire yi neex ma rasu na ko dal damay damay continuer waaw foofu laa waaw way moom moo gën fecc meeg simb si bàyyil ma jàpp ci way yi noonu laay def noonu la ñuy def noonu la ñuy def ndeysaan ba ni ma jugee ci àll bi ñëw fii fekk fi kuñ naan Malick si mom la doon wax ci commencement bi Moussa Diama mi xamna limay wax mhm. ma ñew doon lu ndaw di way simb fekk fi sama papa ñom Boy Pen ak a Asek jamono ji ma fi ñew xalé buy way mhm. gisuma fi ay xana ay karaak ñoñu ta bobu nekkuñ fi mhm. ma ñew ne seen biir jox leen cër nak ñing may seetaan damay ñew seen programme fekk leen fa tok mel ni buy ki ni buñ abal ma bala nit ñaa dem ma way ñaari nit ak dinañ ma fa gis bëgg ma ba xew woo xam ne du ma ko fàtte mukk ay mbokkam la rakk la ci moom muy xew aji mbay moom moo ko doon way mu waroon sëy premier sëyam côté Bongore fii euh, booy pen way ko mu dugg way soxna si daal di am lu mu yëg ne ma yow moom musuma way musuma def nii suba damay yi dama bëgg nga wax ma ñaata laa lay fay mooy engagement biñ ma njëkk a fay ci xaalis way mhm. ma ne comme que Baye Talla ma fi indi ma woo ko ba mu ñëw ne ko Baye Talla kii de nee daf maa soxla Batal na ma non wax ko li nga mën a ko déedéet comme ko si sa programme la ko gisee waxal ak mom rek lu def baxna na mu jox ko 100000 francs mané man ma nga bersi fi toj na ko dal xamné da nga dan way ndaysan ba naw légui ma dal di bëgg dugg VIP incarné ba sa dem wax ak gaay yi ba dem fekk fa papa boy pen ci xew wo ndax teel lay wax bi ma ko fekkee ca xew mu ne ñu ne ma dugal mané ko duma ko dugal Moy suma baay jox len ko mu dugal ko ci sama poste jox ko ba noppi manam limay wax damay jangal xalé yi ne suñu ginnaw tay ñew deug la ar mhm. ki la ñëk ci neeg bu lëndëm mo la naan fe lañuy talé lamp bi. te lu way tarbiyul mhm. do ko jariñu mhm. ñi la ci ñëk jox leen cër bi ba mu mat seuk du mané lima am kaawlax yaram a may ndax sa bu mënta foot bopam way la xam dem bëggal sama njabot Telna sok nak. nag. yori soxna yori njaboot. kenn du dox ba gis ma may taxawaalu ci lenn boo siiwee nag siiw nga dinañ la waxal lu baax dinañ la waxal lu bon mais man liñ may waxal lu baax sax lu bon sax lu baax laa koy wax ndax xam naa fa ma jëm te xam naa ki ma doon xam naa xol bi ma yàlla yor jox te yéenewu ma kenn lu ñaaw. loolu am solo loolu am solo ay way daal boobu nga commencé di professionnaliser wu. waaw ba ni yàlla defee. Mhm. may jóge ci timin ngénte yi. daje kuñ naan omaa yi mu xëcc ma ne ma am nga talent. pourquoi ci woo ma ma ñëw mu xëcc ma. bulu bër ñu commencé def soirée foofu di nooy bulu bër mu jóge fa dem seen saalu ma topp ko ba nii kon am na lu mu ci suñu carrière ñu ngi koy ñaanal moom it di ko waaw way daal xañ na lu ne yàlla ne woon aale dafa yooy mais nag dundum nañ ko tarbiyu nañ ko bu ñu toogoon fi ñu la wax fi ñu jaar ci ay yooy day doon leneen mën naa jël émission bi mhm. waaye daal dox nañ ci wax nañ ci 12 ans yoo xam ne ñu ngi ci àll bi di sàkku rek très bien bañ nañ ko ba aale xam nañ ne mënta way wayu kenn lu ma way maa ko moom mën naa jël nag way Youssou Ndour mais bu ma koy jël ci suma morceau laa koy dugal rendre ko ci hommage yàlla ko mu dem ma continuer sama couleur nee ma doo tax doo bind bindal aale mbuum nii du ko liir yàlla def na loolu xaw ma sax ni ñuy bindee sama tur te moo gën a yomb dégg naa mais dinañ bind jox la nga way a ah, ell ah? ah, xaw ma de aale mbuum ngay épelé aale ngay épelé luy épelé mooy aale ngay wax niñ koy bindee ma yooyu man dal dina jang ci kanam nak ndax jang lu bax la ci artiste ma ngi jël ay affaire ci souf mais manam mm-hmm. bo ma bindaloon dara ci français ni mm-hmm. wax ma ko ma répété français bobu bu mako ko way ko da nga nan ki mo dak jang min ay ay way dal yalla sedna mako do bind fen da ngay dem studio rek woy dama ku mënte bind c'est tout loy bindé ay morceau ndax ñun dañuy tok ci ay bongo ni say way nan la lay ñëwé yow li way nan la lay ñëw lay lekk ba suur rek soxna si xale yi di fo di ree soxna si suuraay ba mu jolli ma yor bongo bi toog ca kaw xam nga foofu xalaat dafa yomb ndax waaw day yomb lool bongo bi laa yor rek kott ko man. def lu la neex barke sëñ Touba soxna si di njar di ma jox may xalaat di way di teg. très bien alors léegi xam na lañu ñu def euh, dañu bàyyi Alé Mboup mu dem changer ñëw ak ñun donc ci deuxième partie bi mais danga may joxal micro bi euh, sa xarit Moussa Diama.

Moussa Diama donc daal di yegg si moom comme ni ma leen ko waxee tout à l'heure mu nekk un jeune promoteur di yëngu ci lépp loo xamante ne nii rek donc événementiel la euh, fii ci Kaolack euh, bu jeunesse bi demee ba tàmm yenn artistes yu bare bari yu jógee fu ne ci Sénégal di fi ñëw euh, bu foog ni bokk na ci ñi nga xamante ne nii ñoom ñoo fi ñi ñuy les grosses pointures de la musique sénégalaise

ku lim da ngay juum foog naa ne ñiy toog ñëpp samay nit leen Modou Xalaas sama grand Saloum Cheikh Përëj. Père Saloum. waaw kenn du wax musique Kaolack te tuddoo ko. nuyu sama rakk yu baax yi Père Saloum yu baax yi nga xam ne waa Napoli. Kaolack ñoo fi jeunes yoo xamante ni tey wane nañ fi seen bopp si lu baax. moo tax ñu invité leen. waaw boo am respect lañ. Mhm. wax dëgg fa yàlla am ñooy bokk di toog fii si parking bi. Mhm. di nuyu orchestre bi. di nuyu aale ñoom jaak suma grand yi ma fàtt kenn ku lim rek da ngay juum. di nuyu nag sama booy bala la toog Cheikh booy bu baax la Cheikh Ndiaye waaw Cheikh Ndiaye séeri soña ah bu baax la kooku sama doom nday la ñëw na ci dëkk bi mhm. fekk ñu ci dëkk bi mais yar rek la ñu ak teggin macha allah ba tax na tey moom tey dëkkatul Louga fii la dëkk mhm. ndax li muy def fii defu ko Louga mhm. te kenn du ma waxal kenn loo xam ne defoo yar rag la ñu woon ak teggin ak amee wërsëgam di ñu si mosal ñun ay garaam ndeysaan te buñ ko ëppale ëppale cheikh yàlla na sa jamm yak cheikh ma ngi lay nuyu. borom Louga borom Kaolack. di nuyu sama grand. Ci ci moxo borom daaru ndeysaan wax deug fa yàlla suñ fi toogee dal di lim. Mhm. dina yàgg. très bien wante ma ngi nuyu nak Akim. Mhm. Akim Amar. sa dom nday waaw sama dom la. Mhm. sama xarit la. du sama xarit sama dom la. très bien alors euh, ma ñew sama première question naka naka le promoteur culturel yi hein

nekk na loo xam ne jamono yi ah su suñ jot xanaa liñ toogoon duñ ko toogaat kon sant yàlla la te boobaak léegi kenn owuñu police kenn mënatawuñu kon ay dañuy nekk loo xamante ni tey tey jeunes yi fi nekk yëpp tey ñun ay jàmbaar lañu du mën a musaa jàmm mais ñëpp ay jàmbaar lañu ndax mënoon na gën a ñaaw mënoon dem dem tiriande ji wala ñu sàcc ji walla ñu jaay lu ñuy tere boobaak léegi ñuy ànd ak suñ ngor di lekk di naan bu ngoon jotee ñu ñëw toog ci parking bi bu ngoon jotee ñu dem tëddi foog naa ne boobu ba léegi sama gars yëpp si lañ nekk te musuñ dégg musuñ dégg lu ñaaw mhm. kon nak dañuy jàpp ne rek ndogalu yalla la mhm. day jeex mhm. te amaana na léegi mu jeex bu soobee yàlla très bien alors euh, jotoon ngeen jël engagement amoon ngeen ay ay ay programme yoo leen waroon tëgg euh, te te coronavirus bi empêché leen ko euh, bokk na ci Wally Seck bi nga xamante ne nii nañu ko ba Kaolack yëpp doon ko préparé coronavirus bi daal di ñëw après contrat bobu nga amone ak Wally Seck naka la demee lan nga ñu ci mëna wax. waaw contrat bi man maag Wally sax dañuy def contrat mosuma signé ak Wally contrat nii Wally signé ma signé. nga indi waxtaan rek après. ku ci nekk am confiance ci moromam. sama tëgg ak mom yépp ay waxtaan la. maag Wally du ay du ay contrat. Mm-hmm. li wax Mor mbay né seede nako tok mm-hmm. toog nan man ak mom ak Wally même pas. trois mois avant lii man ak moom ak Waly Mor mbay mooy sama seede dëgg la ñu toog Waly na ma damay ñëw Kaolack mais fayeekuwuma la ñaata nga yor man ne ko temps laa yor mu ne ma yónnee ma avance man Waly may fayeeku mhm. déedéet naa ma rek loo yor ma ne ko temps mhm. parce que ma ak moom du du ay mbisut relation moo leen moo leen moo leen boole. Waly du xaalis ko fi indi. Mhm. Waly xaalis indiwu ko Kaolack. relation moo ko indi Kaolack. mooy Youssou Ndour rek. ku ko fi indi ku ne xaalis indiwu ko fi relation moo tax buy ut nit ñi di uti euh, xaalis tamit yow de ko boole dut xaalis baax na mais del ut nit ñi waaw del ut nit ñi ba ma ko joxee xaalis boobook tey avance boobook tey mosuñ wax ci avance boobu yéen a ngi déggante ba léegi barki démb su guddi rek ñu ngi wax ci yeneen waxuñu ay waxi Kaolack maa ngi moom fu ñu toll nii waxatuñ waxi tëgg Kaolack mhm. dañoo bëgg bu Covid bi jeexee ñu boole ko yeneen cinq raison boole ko Kaolack mais waxi Kaolack bi mu wax. saa Diama dafa bëgg génn Kaolack wër yeneen région daal di fa def li mu def Kaolack. loolu loolu moo nekk sama xel sax man waxatumaay waxi Kaolack la Kaolack li ma fi def def naa ko fi. Mhm. si si mhm. def naa ko fi prouvé naa fi di. Mhm. am na loo xam ne kenn du ko naataam la. prouvé naa ko fi. ñaata yoon laa fi indi Wally Seck bi mooy quatrième fois ma indi Wally Seck contrat bi. te boobu 2008 ba léegi maa ngi ci maa ngi ci affaire 2008 laa commencé dugg ci walum lamb ba so ba tey. Mhm. kon léegi dèjà léegi ma def lan 12 ans. Mhm. kon amatuma dara lo xam dama ko fii pour nu may xoolee pour nu may làmbee yeneen raison yi mais Kaolack mom ku ne xam na moy base bi. moy mhm. base bi mais waxi Kaolack mom waxatuñ ko. wax ay contrat Kaolack. Covid bi jeex na rek teug nañ ko suma ma sax ci une semaine ma japp ko ci une semaine. bu corona bi jeexee rek. suma ma neexee ma ne tey la samedi. samedi bi di ñëw damay teug Waly Seck loolu ci yow la corona je ne j'ai pas compris man comprendre li nga wax. dama ne suma nexé bu ne tay tay tay Covid bi jeexna waaw. samedi bi di ñëw ma tëgg je waaw Je ne Je ne si man la dess dessu ci yow quoi. sais dama si suma fit la bok suba suba bu Covid bi jeexé man na wax suba la bi. da day fess jeexna comprendre na bu baax li nga wax parce que waaw parce que ñun pour sow bis pour diko def pour di ut fit.

ñëpp yéenante jàmm ñëpp jàmm ah man de ñëpp laa yéene jàmm macha allah munoo ne nag ñëpp la yéene jàmm mm-hmm. waaye man de jàppaluma kenn dara mm-hmm. te sama xol moom jàpp naa ne dara nekku ci très mm-hmm. ñu ngi lay gërëm di la sant mais da ngay toog ñu continuer pare guñu amul benn problème ah àndandoo ak yow Moussa Diama Mbaye tàccul leen ma ko bu baax a baax ah euh, di promoteur boo xamante ne ni je pense que liggéeyam ah tey kenn dootu ko naatable ci Kaolack wax naa ko indi na fi artiste bu ne motax amuñu complexe ben bu donc au niveau de Dakar wala un peu partout à travers le monde alors nous, bu baakha hein, euh, au cœur de ville euh, bu Kaolack mu ngi jamono ji l'infatigable mbay Ngom may bégué bu baakha baax fa ndax moy japp ci rek ñun ñi nga télévision du Saloum soxla nañu ko ñu koy ñaanal bu baax a baax mbay Ngom ah, mu yàgg fi loola ak ñun di nuyu le président Serigne Mboup mi nga xamante ne nii lépp moom et puis di wax la jeunesse kaolackoise ne leen euh, ñu ngi leen di defaral terrain de football boo xamante ne nii ah, comme li ngeen gis Dakar Sacré Cœur ah wala école police à Dakar terrain yooyu nga xamante ni eh, di ngeen mën di fa ñëw di fa football ah heure bu len neex donc légui tay ah mu yemb ñu ngi koy défaral bir cœur de ville bu Kaolack donc le président président Serigne Mboup que le directeur du cœur de ville de Kaolack monsieur Mbaye Ngom donc di euh bëgg gu ñu bëgg donc jeunesse Kaolack bëgg ànd ak ñoom fas liggéey ak ñom et donc euh, dañu dal di ànd ak euh, ki nga xamante ni mom moy Alé Mboup àndandoog DJ Blanc ci deuxième partie bi bu ñu ñëwé nak légui légui ah dal di def micro ouvert jox ñi nga xamante ni ñoo fi nekk ku ci nekk sanni ci ay kàddu alors allez Mboup ñu dem deuxième partie bi let's go. ndaysat kay la ñu ambiance nak ay waay bëgg naa leen maa ngi koy seedeel suñu borom bi yàlla moo ma dem te jàpp leen ci yow si lay wayal ak ma lambaay moo noonu ñaaw yéena ma bëgg ma ci aw ma seen fay tubalaay wuyo wuyo wuyo yaay ah ah Um foi falei, falou. yàlla moo la booleeg waa Saalum ngay sonn ci ñu mënoo ci dara saytaane waxul dëgg waaye yàq xalaat sama waa ji yow cuune yaa ngi jàppale jigéen ñi Kaolack na nga yow moo doy mooy adama yaayam Cheikh Issa Dieng mooy sa maam kooku mooy borom jendeeg la moo ne ko demal ba jendeeg ma fekk la faak la gën yaay ciiri benn bari yow moo kaayi ñu adama yi yaay ma noonu di ma sagal ak malam baay damay bëgge Seexu Yàlla yaa ngi nii kon inaak aba ñoom dañuy bëgge yéenu bëgg aale yéenu bëgg maam Cerno Birahim ndama la ca daaru wuyo wuyo yaay ah ah wuyo wuyo ndeysaan saa yu ma woyee borom daaru ceexu yàlla yi ñoom dañuy bëgge saa yu ma woyee borom daaru ceexu yàlla yi ñoom dañuy bëgge taalibe borom daaru taalibe borom daaru yéena nay xale ta am jom nangoo liggéey sama rakk yi laay wayal lambay lambay lambay lambay wuy lambay lambay yow axma doomu yaayu daam doomu yaayu kamal layo nit ku baax du ñàkki noon loola waral ma koy di waxat samay noon waxi noon ye waral may avancé a yow mi sama waji waxi bañi sa promotion la ah, yaay doomu baayu silman ma wootee soirée ci Mokho Njaay di ma mooy doomu yaayu seex faal ja gamono ñaaw ku sant faal danga yéwén ñooy séeri sooña tu faal faale naa la oo oh, faal njaga yaara ku sant faal faale naa la oo oh, faal njaga yaara yaay saalum saalum saalum saalum day bëri jom saalum saalum day bëri ngor saalum saalum day yeween saalum saalum day tabeeñ booy bi dëkk ñàmbur yaay dëkku baay juuli mbaay dafa jóge Louga la ñëw fii yàlla boole koog sooña yaay borom ñàmbur yaay xarit bu ma yàlla bëggee na ma bàyyi ak yow yaay yaay doomu yaayu bay ma taar waaw waaw yaay doomu yaayu bay ma taar yow yow may bëgge di ma tiitaroo waaw waaw yéen ñi may bëgge di ma tiitaroo aw ma seen fay doomu yaayu bay ma taataar yaa bëgg aane wuyu wuyu wuyu dee te mu wiyu ma dooma tànkam lu benn yoon Ceeki Biram ak Bay Maalik borom yaa gën Maalik borom sariyaan laay wayal wuyooy seex góor gi siite cekkay baayam yaa tay mu ba yaayam doomu yaayu laay dóor sama xarit maa am doom tudde ko ko kooku sama xarit la mooy doomu yaayu laay ñan jàmmeñal xadu ñok yow seexo góor gi siiti si kañ ni xeebuloo ma benn yoone yaaw Adama sa yaay jigéenu Kaolack Ndangaan yaa ngi leen di jàppale lekkoo dara bàyyi ñu ku ci xewle nga dem dooleel Kaolack dangaan moo la ñor moo du sëtu moo si ku ma jigéen bi Adama may sa yaay lay waayam wës tey moo bëgg Saloum laa ilaaha illallah xanaa seen yaram daa tàng ku la ñaan nga may ko yeah yeah yeah yeah yoo gëneel benn yoon stade Lamine Gueye xam na la yaa ngi dem korese te yaa eh, borom ñemeeg la gal demal ba ngénde man ma fekk la faak lëgën lëgën lëgën lëgën lëgën lëgën lëgën lëgën lëgënee wa wuyo wuyo wuyo yaay aa ah, ah, wuyo wuyo yaay muy akasa sëñ Fallou ñoom ñëpp liy wane ne artiste Kaolack yëpp benn la mhm. si fa sama rakk ñoom ñëppay jàll ci su ma ko waxoon day ñëw ñoom ñoom ñëppay ñoom ñëppay jàll waaye xam leen ne lii lu ma ubbi la rek sama rakk yi xam naa ne ak ngi fi waaw bu nu paree programme waaw ci jógee ñeneen a ngi fi di programme rek di dem nee naa la artiste Kaolack yi ñoo moom émission bi ni lii lépp nag mu ngi jógee ci initiative u Hakim Amar Hakim Amar ah, donc euh, xoolal kooku dafa am yàlla baaxal daa am morceau bu ma euh, doon xaar ku bëgg télévision du Saloum Diko ko et puis à chaque fois eh, Dignu ñu jox ay donc eh, Diko ko vraiment euh, jeune bu bu wane qui la ci Pastif, ci lépp lu jëm ci wàllum culture ak développement Kaolack donc nous remercier ko bu baax baax ah, moom Akib amarat ñëpp ñi nga xamante ne rek ah nañu fi Modou Khalas, ah ñi nga rek ñu ngi ci guddi gi comme l'on nga wax akim yemaleuko yemalewu ko ci télé bi rek chaque jour dina dima ma jéggiloo sama bët fenen, ndax fi kenn newu fi yàlla rek fi ne te njàmbaar amul ku yàlla dimbalee fi ne mu am yene lol ci artiste yi dima di dima di conseil di wax lu baax yaa xam li nga bëgg sama naaru darmanko bi la fal chat waaw di gërëm kenn ko xam ne nekku fi waaye nit ku baax la muy Bambara ibu Bambara barki démb dañuy def corona ben morso dem seeti ko korok la li Moussa Dia don neteli ni legi mak ablay Ablaye ak Akassa me ñu dem kërëm kër Ibou leen njëkkee mu yëkëti junni yu bari jox ñuko ñu dem ci musa mu def nonu ñu boole artiste ka Kaolack yëpp def ben sëngal clip ko sanni ko def ko suñu participation ndax artiste yëpp a def waye ñun Kaolack nuñ mel jeune yi la mhm. barki Serigne fallu ñom ñoo ñu favoriser ñi ax ah, ma làmbaay damay bëgg lu rafet mu ñaw ko jox ma gratuite li nga sol jili liggéey inyo ñoo and mu ne ma lay solal dag ba mu rafet jox la yére bu rafet bu ma sol moo ko jox mhm. ku gëremul nit do gërem yalla Medina bay bu ma pak pak fa la juggé damay taxaw ñu duyel ma ay million ca Mounzira ko ubbi ñas ko mbab dalay doomu yaayu Taala juuf ñom Omar cham ay xalé yu ndaw bëggal ma seen bop ñom Aliou Mbaw mhm. mënumaa wax bam jeex te gëremuma len ndax ki lay bëggé di la fay xaalisam té lu am né yaw la koku fo toogee ci ay mbir dé ko gëreum Cheikh sek japp na ci Cheikh dal djouf la Latir Ndella Aram Sar japp na ci ba pare yebal yebal laay ñan ne ko demal demal demal nga ak bëss bi ha ah, demal nga téwé guddi gi ndeysaan mhm. samay xaritu bop ñom bay Matar ñom Cheikh ndjay gis nga ku nekk duggal la juggé da ñew ma wax ko ko mu ne ma yow lo nekk ma nga ca ñi bañ may sétane cheikh yalla yi di ma bëggel di ma bëggé du tay ñom dam wali ñom Kamal don ay xalé yu am jom bëgg dara fi la leen koy waxee xamna naa ne cœur de ville nak bala ma dem fenn na leen taggu mais bala dara xew bu corona ubé xam nga Moussa nee dina fi indi ki mais man fi la koy ñëkke ñu juggé fi dem Grand Théâtre ta yagatul dara la nuit di salum inshallah paré pare naa ko te waxtaan naa kook staff bi muy ñom Touba mi lolu day am paré na paré nga pour ñu song defal naa waaw no waxuma man de. lepp fi lañ koy waxtaanee ak wa Kaolack ak ñi fi nekk ñëpp je pense que lu allé songu. Moodu Xalaas dina ci jàpp ñii toog ñëpp dinañ ci jàpp du dëgg dañu njëkkee esplanade Saly anniversaire u ci semaine boobu rek lay doon dañuy waajal fa loolu uh-huh. ñu def ko uh-huh. bu ñu paree fii nii esplanade bi uh-huh. stade la ñu jëm dafa war a fees allah bu ñu jógee stade nag door a dem Dakar ndax li ñuy woote sax du doon aale parce que kuy bëggé akasa bo ñëwé di nga ko fa gis kuy bëggé salé bo ñëwé di nga ko fa gis parce que buma ma lu may def man sumay rak la ci jiital guddi yi ñu tollu dañoo am luñu mebet di ñaan yalla salum yépp ndaysan jàppale ñu ci mhm. ndax euh, ñi ngi formé lo xamné ne bërki démoo silmang njaay mais gewel intellectuel la bokkut ak aale bu mi nga xam mën ta bindu turam kok moy président conseil régional boko xolé da nga nan ki waaw parce que lépp ci gëm-gëm la mhm. di gëremalé papi ndax bërki démoo Njaay dañoo war a def réunion mu ñëw ubbil ñu saalam taalal ñu kimilam yàqal liggéeyam yëpp Dooro Gay ah doomu yaayu tuubalaay doomu yaayu axma doomu yaayu ji ba pare taxaw ne ni Aly Ngouille Ndiaye recevoir artistes yi Ndakaaru yi noonu laa bëgg mu recevoir leen mhm. léegi kaay leen fii wax leen mu dégg leen te incha allah balaa yàgg dara dinaa leen woo ngeen ñëw Dakar jàkkaarloog moom très kuy jàppale guddi yi nii mhm. dangay xam ne boo jàppale aale yaa ngi jàppale akasa mhm. ku jàppale saaliw yaa ngi jàppale aale ndax ñom suma may lañ amul kenn ku fi def 20 ans de carrière ku ci nek jaar nga ci man jaar nga ci man moy buma la jangalul way sax amna public bo amul ndax kenn xamul la nga ñew jaar fa ñaar ak ñett xam la ba nga mëna am sa yëfi bopp aka ya ga taxaw am nga yaakar ci xalé yi bu baax no bu baaxa baaxa baax xam nga lan motax xam nga lan motax ni ma la waxe samay papa la fekkon man dama teel dugg ci way ma ak ñom ñoo bokk génération 82 ku amagul 40 ans gone nga nee nañ góor yàlla dëgg da ngay dugg ci sa 40 ans kon ñoom su rakk lañ te aar da ngay tarbiyu ak li ñëpp di def lay def dafa njëkk a tëgg sabar boo ko dàqee mu fecc te way yi fu ne jaar na fa ànd nañ fu ne mu ne sama ginnaaw di ma awu ba tey bu wayee nee naa ko boo deful ndànk ma arrière àdduna nit da ngay nangu macha allah booy sëñ saaliw gis nga ni ma def Kaolack yëpp xam ko mhm. bëggal ma boppam te trisewul mhm. barke Serigne Touba lu muy def dañuy toog di waxtaan téléphone ba 3 heures du matin li may wax nag ma tibbee ko sama xol ndax bu fekkente ne bi am naa benn xol ak kiñaan man aale man bala ma ko yéene kenn lu ñaaw yàlla na ma yàlla rey fa ma ko yéene su may rakk lañ te kenn mënta wax ba wax li ma war a wax mu ma kon li ci des mooy rafetoo jàppante bokk ndey bokk baay te xam ne fii Nous amul ko yalla dimbalé ak quatrième morceau bi le temps me remercier bu baax Zalba Zal Diop hein, ak wa restaurant machallah bi nga xamante ni ñom ñoom yombalal hein. ñuy émission bi ni mel donc di euh, salle bu rafet bi di salle number one nek que ci restaurant machallah cœur de ville bu Kaolack ñu ngi leen di remercier bu baax a DJ Omaye Avance ñuy remercier moom itamit japp na ci goudi gi. Euh, bu Didier Blin Ken du collaboration télévision du Saloum merci donc du fond du cœur Didier Blin ci bépp événement bu ñu am dañu gis euh, taxawaayam bu baax a baax euh, dañu daal dem quatrième morceau bi ah, micro public bi. waaw ñu en beauté. ndax Zélé. ak bi ak di ma bégg di ma tiitaroo di ko may Baye Matar nag ba tey di ko may di ci invité nag suma mag suma xarit muy Saloum Seck ndax Père Saloum waaw morso taara bi nag dama koy commencé mais sama rakk ko yeggale ndax maa ko invité akasa ay jaale mbuub ay Touba Madina iwa damay waay man mi damay kañey dëgg dëgg yaay booy ñi dañuy bañ aka dañuy bañ doon di góorgóorlu wuy jàmbaare damay waay ana silma njaay hee jawaay joli almiri njaay sa baay géwél bi yaay bi lay woo waaw yaay buy doom ndayam da jaafoor su koy nampal da koy xool am juróom ñeenti weeri benn bis ñëw xaw laa gaañ ñi ci bëgg seen yaay yaay ba Mala Mbaay ooye oh, ah ba nga diigunil mënuloo yaay di la manal ba nga man ba nga xale xamuloo mu lay xoolal fi ngay jaar ba man soo màggee di ko sonal dina ñaaw soo màggee di ko jooyloo dina ñaaw dina ñaaw dina ñaaw yaay jalla jalaala woowoo ñii dañuy bëgg ñii di bañ ñii di am ñii di ñàkk waaye yàlla dafa bind te yemalewul ma bëgg la ma bëgg laay booy la dile dindila aram saar gana maab mambay aram saar baayam Abdou Diouf ay baayam yàlla woon soo ñaalay sëyal kenn ci dara picc mi bindam fire. No builder. Tagama begin of Yadinu. And the Guru Awakumbi. Yeah, you me, you me, you me, you me, you me, you me. magul asalal laay jaag wax magul a dagal di liggéey Bagdad Couture rakki Xaadim Gey yow wax magul a ñolal doomu yaayu Xaadim Gey borom Sandaga laay wax magul a ñawal di liggéey Bagdad Couture cœur de ville de Kaolack laay jaag wax magul a dagal booy di liggéey Bagdad Couture cœur de ville de Kaolack taalibe Serigne Abdou Khadir Mbacké Ilimani Touba

boole woo dara ki coow góor gi Abdou Gueye sa baay oo oh! Papa Njaay nanooy yéen ñi may bégge chéri chéri Mama Njaay ko gi Serigne Mamour mi mi dippee Serigne Mamour Niass yaay boy yaay boy yaay ma yaay boy yow la ñu tuddee Serigne Abdou Khadir Mbacké Ilimani Touba yow njaay njaay alaaji Malick Ndiaye sa baay la doomu baayu Xaadim Ndiaye iwa nanooy Cheikh Biram ak Bay Malick borom yàgg Malick borom sariyaan yaa ma njëkk wax ci moxo nu mu sant nanooy ne ma ale faal mi yàlla faale ne ko Moodu seen ànd daal leer na ale yéen ñaar démb la tey soog a ñëw waaye dama bëgg ku fonk gi piwula yaa ngi jàppale képp kuy naanaan yow Tuuba doon géwél taxula xam fi ngay teg sa tànk Tuuba muy Tuuba Tuuba dégg dégg Tuuba lay ko ñoo daroon yonen sama naaru darmankoobi aki mooy aki meey aki mooy aki meey dëgg dëgg aki mooy kandang di xëy di yeete yaa ngi liggéey te boole woo ca benn joom yàlla du fay wax bàyyi jëf ndeysaan kabir bi tey papa kebe ana paap séeri faatu sawo waaw jaase sekk mi may way la sama xol bi li la war mooy jox naa la sama xol bi li la war mooy saa yoo ko defee mu neex suñu ànd bi yàlla jëm yow tuuba la ñu digee booy jëfe ko jëfe ko chéri booy kaay jëfe ko kaay waay kaay waay galabul may soriiti dege ma may la jabar te teñati téeméer ma may la jabar te teñati téeméer budul woon ak ndigal du ma del si may noos go go go go go go. ñi ki may bëgg a woo ndaanaan la ak saa sama rakk jee ndaanaan la man de may bëgg a woo ndaanaan la xam nga ni émission télé mel tàgguwuma la dama ne la invité na la jox rajo bi jëf jaa ngi nii yaa ma bëgg ak asaa xoolal sëpp lu ko mën a nga ca biiro sama rakk ji ca saar waaw dama xam nga mënoon naa toog fee di noos ndax yow da nga may noosloo ale yàlla na yàlla dolli sa jàmm ñun nag feneen fu ñu uti ay mag rek yàq nañu ko ñun yaay sunu mag yaay sunu maestro ci yow la ñuy rotee dëgg neexul ndeysaan bu nu baalee jàmm sunum ree sosaa rawatina nangaan fi la wara doore jaal buuba jaal jaal jaal ma caayre yaa ma woo ma yow laa yi la guy gu daar gaangi doomu nday tuuba sherifaat see baa doola Baay Fallu laay ndeysaan kër jafe na kër jafe na kër jafe na wuwo kër jafe na ak da ngay liggéey ba weer wi dee nga bëgg a tabax wuwo bëgg a dundal sa njaboot loolu na loolu metti na léegi nag damaa bëgg mu wax dernier morceau bi dama bëgg Kabir nga ñëw filmeel ma ci loo xam ne mooy doon yëgle bi rek ñu yem foofu waaw sama invité yi laay taxawal nii ñoom laa bëgg ñu toj darñeel morceau bi ñu zëlle dama laa namm de ci corona bi yenn saay yi ma woo ko rek mu ne ma kan la ci karma karma faal njaga mi yenn saa moo am lu mu def ci corona bi ayca li mu def ci grand bu ëpp na waaye corona bi yëpp moo moo ñu géré. moom laay ah Sénélec la ne. ndeysaan di business. waaw woo nañu ñun ñëpp ku ci ne mu jox la ceeb. laay dafa baax laay te fi mu toll nii sax am na lum ñu indil. jali jali jot nga ci ci ci ci ci ceeb bi. ah laay waroon nga yónnee waroon nga yónnee sama waañ ji ci ceeb bi ah. yónnee ko ko mbuur mu jot ci ah. doomu mbuur baa ngoog alors mbokk yeeg xaritu téléspectateurs yi. acca allez toogal toogal rek ñu tëj ko très bien toogal ñu tëj Wow, Aïcha, dañ koy tëj rek dernier morceau bien ah. très bien 25 minutes modeste, allez Faut que je ah alors allez euh, avant muy ñëwaat ci yow damay jox père Saloum ah, Saloum sec sec. musique waaw musique tout alors bu faut ci tu bi il faut que jox ko mu

ak orkesam am mbuubeen rythme ak musicien yi koy jappale ak suma rak yi yor sabari wax deug yalla ñi ngi yaatal ta ar yaatal la si se mba nga bon bokko ca kuy def deg ku deful doo dégg su ma limee dinaa juum waaye jàkk jërëjëf ñoom Céemaxoo ak Akim ay ñom ay cheikh Njaay bàyyiwuma ñepp ay Iba chama gayep cheikh sek ak ñepp ma leen di ndax dama ne bay say yooyu tank na jappale artiste dekk bi ndax ñun amuñ lu yeen yeen amulen ñu dut ñun te ñun fuñ dem titeru yeen lañu titero yalla na yalla doli jam barki seigne bamba jerejeuf kontan ci mom père saloum sek jerejeuf père ha ah, kaddu yi rafet na lol lol lol allez alors lan mo nek ce mot de la fin lan ngay tejé guddigi lan ngay wax euh, donc euh, lan ngay wax sénégalais yi nga xamantene ni ñu ngi lay sétane lan ngay wax quoi yi nga xamantene ni ñu ngi lay seetaan euh, tey ci guddi gi di melaat ci émission bi nga xamante ne nii yow yaa ko ci donc pour Kaolack yëpp pour Sénégal yëpp pour say soppe yëpp. waaw li ñuy wax wax nañ ko ci commencement bi ñun Kaolack desee la tun ñu dara waaye nañ xam ne ñun bor bi ñu leen yoreel mooy xam fi ñuy teg suñu tànk liggéey bañ a gestu fexe chaque jour di xalaat luñ leen di jox mu leen di neex di leen gën a ñaax di leen dénk suñ bopp di leen gën a ñaax tamit ñun ñu gën leen a fonk di ñaanal ñëpp di ñaan finyo mi juggé fi ñu wat ci li ñu nekkoon di gërëm ñi nga xamné japp nañ ci bis bi ku ci melni Tala Talla Diouf ah ñom Cheikh Sek ñom Moussa Jama Ibou Bambara Baye Fall yépp Cheikh Ndiaye ñi nga xamné dañoo bayyi seen ité oma yëkkati matériel jox ma ta laajuma benn dërëm Père Belin mii mi nga xamné samedi bi di ñew lañ ko wara mur ndax sëy na astafurla waaw dama juum yow bilay la koy muur waaw waaw waaw dañ allah samedi waaw wala dama wax erreur non ah? la noonu la maa ngi très bien alors donc ñu remercier bu baax a baax rek ñëpp ñi àndoon ak ñun à travers donc euh, cette émission émission bi nga xamante ne nii ko bi moo nekk donc premier numéro bi alors mu nekk tay ci guddi sur la télévision du Saloum remercier bu baax a baax ñëpp ñi nga xamante ne nii ñëwoon nañu ànd ak ñun ci guddi gi ni mel sunu invité yëpp ñëpp ñu ci jàpp ñu ngi leen remercier.

sëriñooy mbuub borom Kaolack seex sekk ma ko paas téléphone bërki di moo mu ne la mu ne ma aale mbuub ay ca man de liggéey ñàkk jariñu rekk laa gëm loolu waxu sëriñ mbuub la jeune bu ma indil projet man def ci la ma man jàppale la nga dem liggéey moo moo ma ko wax ci téléphone. xamul daray caaxaan Serigne bou président chambre de commerce d'industrie et d'agriculture agriculture bu Kaolack. Serigne Jaajiri. doomu yaayu Mbaye Ngom directeur bu Kër de ville bu Kaolack dina la recevoir Mbaye Ngom borom borom. doomu yaayu mbay ngam suñu directeur bi ci dëkk bi defar dëkk bi la ñu wax ana mbay ngom woo jaagiri waxtaane musique rek a neex birum direct ku man gàddi xeeg ni ngi daw sala ku man daw njaay ma jooju diggiñ mbooc boole kenn du la faale Tuuba góoru awa kume borom Tuuba portable sama xarit nga bàyyi ma taar bàyyi ma taar bàyyi ma taar Baay Matar Baay Matar kooku ay xaritam a ngi fi Cheikh Ndiaye bañ a feeñ télé nga jub ndax 4 mois jéem a xoo te yaay sama invité télé te sa 3 morceaux bi ku loo xool xam ne pare nga ma nanooy wuy faale wa wa wa faal mi yàlla faale si yéen chéri soña doomu yaayu siik yaayu ci moo ko ay waay wayoo faal njaga yaaram doomu yaayu siik moo faal njaga lay waa yaay doomu yaayu siik yaayu muy chéri soña moo ko faal way wi ay borom ana borom mu dolo waa njàmbur waa njàmbur waa njàmbur meleen waa njàmbur yow ke boko xanaa xamoo zele sai moko zele zele jogal ta kawu sai ak jogal jogal zele jogal jogal ta kawu zele jogal ta kawu zele jogal ta lai jage bayu amina lai jage sheri ma awa jemoko wonalo Domu ya yuzi jéema ko faale ba du naa la Cheikh xanaa xamoo toolam na borom Seck sama xarit la Talla Diouf sama xarit la Cheikh Ndiaye sama xarit la Keba sama xarit la Kondadi sama xarit la Kodadana sama xarit la xanaa xamoo dara am na borom